góor gi ñaan amari toujours ci mairie Guédiawaye boobu la ñuy des ginnaaw Aliou ba mu ñàkkee mairie ba muy rakku président la république Macky Sall dañu gis mu taxawal benn mouvement mouvement bobu nak ñu ko renfort renfort bobu nak amna kenen sax ko xamanteni jogna pour porter plainte qui di Aliou Sall pour plagiat jàpp mouvement bobu tour bobu Aliou Sall tan pour tuddé ko mouvement mom moko mom muy premier incident bo xamanteni gis nañ ko après bi Benno Bokk yakar ñaké élection municipale yi foofa ca ndax té lu jaaxal ni moy mooy di euh, Fatoumata Sy di neuvième adjointe Ahmed Aydara bok ci Benno bok yakar ba mu bëggee teg mouvement Aliou Sall ci boppam dafa jógoon taxaw ne ko kenn mënul bok ci parti Benno bok yakar paré ngay taxawal mouvement ku bok ci Benno bok yakar do am benn mouvement bo xam ne nga koy taxawal ndaxte Benno bok euh, bok yakar nga bok tey nak gis nañu Aliou Sall dafa violer loi boobu ndaxte mom ci bopam mo njëkk dem créer ji mouvement à quelques jour bi nga xamanteni ni génn nañ ci élection municipale yi nga xamante ni ñoom ñàkk nañ ko mu créé benn mouvement boo xamante ni renfort la tudd te euh, mouvement boobu gis naa ni que tey Macky Sall ci boppam président de la République du Sénégal di secrétaire général lu APR moom ci boppam dafa taxawoon ne kenn du nekk biir APR ba noppi di fa créer mouvement je crois que tey mouvement boobu baaxul tey ci Benno Bokk Yaakaar ndaxte dafay gën a indi diversion déjà diversion amoon na ci élection municipale yi bi nga xamee ni ténor yeeg coordinateur yi nga xamanteni dañu bokkoon Benno Bokk Yaakaar di yeewoo géejawaay foofu ñoom ñep la Aliou Sall écarté woon bi mu leen écarté gis nga ñoom ñep ku ci nekk dafa banque loxom téye ko ba war a tax tey ay vote sanction am dégg ngeen ci ay kàddu yi bés yi ñu génn Aliou Sall taxaw di dànkaafu waa Benno Bokk Yaakaar nga xamante ni ñoo jëloon xaalis jox ko opposition bi dooleel leen pour que ñu mën a def seen campagne donc je crois que loolu yëpp ay jàngat la ay leçon la yoo xamante ni tey Aliou Sall war na ko ci tiire Benno Bokk Yaakaar bi nekk géejawaay war na ko ci tiire le président de la république Macky Sall ba nopi doon secrétaire général APR war na ci tirer leçon yooyu ndaxte tay coordinateur yi nga xamanteni ne Aliou Sall écarté woon na leen ci élection municipale yi moo Benno Bokk yakar li gëna tax mu ñak élection yi foofu ca Géejawaay lolu bokk na ci tay mouvement bobu mu taxawal Mata Sy 9 neuvième adjointe bi bëggoon na ko taxawal Aliou Sall ci boppam moo ko tere ne ko munoo nekk ci euh, Benno Bokk Yaakaar pare di créer ce mouvement bopp donc euh, tey kooku su gisee ni Aliou Sall teg na lii maanaam li mu doon teree démb moom mi ngi koy def maanaam Olof Njaay li muy wax kuy digle càngaay dafay fekk nga sangu ba noot donc je crois que loolu ay leçon la yoo xamante ni ñoom war nañ ko ci tirer d'autant plus que tey ñi ngi jëm ci ay élections législatives yoo xamante ni juillet la yàggatul donc tey mouvement yooyu su taxawee am yeneen frustration je crois que échec lay indiwaat ci Benno Bokk Yaakaar coordinateur yi nga xamante ni ñi ngi biir waaye am nañu doole am nañu ku ci nekk am na foo mënee ci politique am na ñoo xamante ni ci côté diplomatie lañu ñu amna ño xamanteni ci côté tontu lañu ñu té te xam ngeen géejawaay amon na ay gaynde yo xamanteni sen seen damul ci sen poche lepp lu jóg dañ ko doon affronté ba ci assemblée nationale ñi fa nekkon yëpp gis ngeen niñ doon affronté comme émission bi passé ma ngi doon cité ku melni Moustapha Cissé Lo ngi doon cité ku melni ni tay ci ca géejawaay ngi doon cité ku melni tay Amadou Ba ci Parcelles ma ngi doon cité ku melni tay Ali Aly Ndiaye dem Tok Linguère je crois que lolu tay baxul ci parti APR donc je crois que APR jamono ji fi mu

tey ñu delloo si waat coordinateur yi nga xamante ni ñu ngi woon foofu ñu boole leen ci liste yi ñu nekk ci bopp ji parce que ku ci nekk am na fi nga mëne ñu doole waat doon benn quant tey mouvement bi nga xam ne Aliou Sall teg na ko le secrétaire général du parti APR muy président de la République Macky Sall di magam woo ko mu tas loolu ba noppi mu delloo ko ndaxte coow la indi comme plainte am na ci comme plagiat am na koo xamante nee na moo moom turu mouvement boobu moo ko créé woon donc je crois que war nañ ko mën a delloo muy loo xamante ni jëlee leen nañ ko foofu ca géejawaay amari ngoone aram baay di ñaax joor di